tume nañ ko te ñaareel bi dama am kersa dama am gàcca ci réew moo xamante ne nee nañ mooy réew Cheikh Ahmadou Bamba di réew Cheikh El Hadj di réew maam El Hadj Niass ñu ne réew moomu tey ci lañ arrêté nit parce que dafa wax di xeex contre l'homosexualité muy lan muy al misliya al jinsiya arabe di ko wax loolu muy xeex loolu ñu arrêté ko ci loolu franchement ma dama am gàcce ci loolu franchement loolu laa am la may wax ci côté boobu. Mhm. ban taxawaay ngeen ci fas yéene am. waaw taxawaay bi ñu ci war a am mooy taxaw jàkkaarloog euh, faire face ñii nga xam ne ñoo ko indi fii parce que régime mu jaay doole ñoo ko indi fii dinañ taxaw jàkkaarloo ak ñoom danañ taxaw it lépp luñ ko war a dimbalee moom Bah Diakhaté ñu def ko lépp loo xamante it loi maye na ko ak bépp xeexin boo xam ne jaadu na yoon danañ ko def. jàkkaarloo ñii nga xamante ni ci jaayam doole lañu nekk ak bëgg a saxal ak dimbale ñi nga xam ne mooy borom ñaari turi Taba Diakhaté di xeex loolu imam Cheikh Tidiane Ndaw aussi di xeex loolu danañ taxaw jàkkaarloog ñoom ci tous les moyens yoo xamante ni loi may na ko incha allah. waaw xam nga Bah Diakhaté propos yi mu wax fii du lu bees ci Sénégal déggoon nañ fa ñu ne Macky Sall nañ ko def comme Samuel Doe déggoo déggoon nañ fi aussi ñu ne ñi nga xamante ne ñooy avocats yeeg magistrats yi dañ leen a jënd déggoon nañ fi ñu ne Sénégal réewum jaay doole la déggoon nañ fi nañ jël deux cent mille jeunes dem palais déloger président Macky Sall te lool ko ko waxoon ci dëkk bu dul Sénégal ko doon tey jii doo nekk ci biti kon Bah Diakhaté li mu wax du fi bees te ñaareel bi Bah Diakhaté nañ génnee benn video bu ne saaga na kenn wala mu offensé kenn te képp ku nekk ci biir ak ñun bañ jàkkaarloog ñoom ay preuve la ñu wax moom la yor te boo gisee mbir mi tey ñu yóbbu ko flagrant délit te mënuñ ko yóbbu instruction gannaaw bañ jeexee ba sonn mooy waa ji fi mu téye dafa dëgër. d'accord mais dégg nañu itam Mamadou Ibra Kane mu ne euh, kii di euh, Bah ak imam Cheikh Tidiane Ndao waroon leen arrêté ginnaaw ba ñu yëkkitee ginnaaw ba ñu déggee kàddu yi nga xam ne Ousmane Tounkara daal dina koy yëkkiti mhm. ban jàngat itam nga ci am. waa loolu waaw jàngat biñ ci am lenn la rek mooy Antoine Félix Diome lii dafay dëgg ne lam doon wax dëgg la. parce que waxoon na fi ne am na entreprise terroriste bu fi am waxoon na ni am na ay nit yoo xam ne dañuy def ay affaire contre sûreté de l'État tey jii nii ku dégg Ousmane Tounkara muy dem bay wax ne xaw ma àjjana laa jëm wala safara dem bay wax ne xaw ma ba xam yàlla dina ma baal dem bay wax ne ñaata sëy laay tas dem bay wax ne dépensé naa lu mat un million de dollars ci lan ci taal ci toj ci ay cocktail molotov lii day dëggal li nga xam ne régime bi fi jógee loolu la ñu waxoon ala kulli xaal li ñu war a wax rek mooy justice ku am ndey kumba am ndey kumba amul ndey wax na fi jeex dans les normes bu ñu nekkoon ci régime boo xam ne régime bu normal la Ousmane Tounkara balaa samedi waroon na ko fekk fii ci Sénégal ñu teg ko fi ñuy teg ay naataangoo waaw loolu nag xëy na loolu moom moo ko xam loolu moom moo ko xam xëy na dafa ñëw pour leneen mais ñun jàmm ak salaam moo ñu fi andi ñun duñ opposition buy génn di toj duñ taal duñ lakk du ñu yàq parce que lii président Macky Sall moo ko fi def te ñun wax dëgg fa yàlla dañoo àndoon ci defar ñun duñu ànd ci xeex xëy na it am na lu muy cherché mais ñun wax dëgg fa yàlla loolu intéressé waaw ree la ñuy def rek mais dara sant yàlla mhm. waaw loolu mobilisation la boo xam ne day nekk lu pacifique loo xam ne dañuy génn jàppale ko yonent bi sallallahu alayhi wa moo ne unsur axaaka zaliman aw mazluman sa mbokk na ko dimbale bu tooñee ak buñ ko tooñee wax ma la ba jaxte nga xam ne dañ koo tooñ tey ba ñëpp xam ne tooñ nañ ko kooku nag faw ñun ñu jàppale ko ala kulli xaal jaajëf jërëjëf ñu déglu leen ba tey voilà ginnaaw nuyoo bi nga présenté wuñ wax ñu exactement euh, tey ginnaaw ba ngeen déggee li nga xam ne euh, wax nañ ko ci Bah Diakhaté ak taxaw bi mu war a taxaw tey jàkkaarloog ji dégg nga maître li mu wax itam leen di la war a taxaw ban jàngat la nga mën a indi ci kàddu yi ak itam taxawaay bi ngeen ci war a am waaw comme ni ko imam waxee léegi rek euh, je me je me présente avant tout maa ngi waxee ci kàddu Pikine Ouest parce que je suis le chef de protocole en même temps coordinateur waa di wax rek euh, li imam wax rek la ñu wax euh, ba waxu fi lu kenn waxul yéen ñëpp fekk yéen en tant que yéen ñi nga xam ne yéen yor média wax façon wax bu ne dégg ngeen ko ba offensé wul kenn waxul kenn dara loolu moom dafa leen dafa leen sonal parce que boo gisee biir benn bokk yaakaar bi yëpp kenn rek mooy wax muy Bah Diakhaté donc pour nag léegi ñu téye baax Diakhaté wax ji jeex bu ñu yaakaaree ne loolu moo tax ñu woo Bah Diakhaté yi pour ñun en tant waa benn bokk yaakaar ñu noppi dañuy nax seen bopp ñun dafa am ñuy yàlla ay républicain dafa am nu ñuy doxee ñun duñ politique politique xam dañuy yàq wala di sànni wala di toj ay xeer ñun xamuñ loolu ñun lu ñu xam mooy lépp li nga xam ne war nañ ko wax dañ koy wax lépp li nga xam ne aussi ñoom buñ ko defee muy lu baax duñ koy apprécier ñun noonu la ñuy doxee politiquement noonu la ñuy taxee lii am fii nag politique rek la politique keese la boo gisee ki ngay wax léegi leur partisan la ñëw fii di uniquement dafa ñëw pour observer et puis lui il fait partie seen lobby seen lobi il fait partie du lobby donc toutes les informations yi am fii da joxe ñun xam nañ loolu mais ñun dawuñ raguñ tiituñ waaw ba jaxate mii daf ñu jaral lu ne parce que nag dafa yàgg ànd ak ñun si combat bi kon bu tey buñ ko wooyee pour li ñun dañuy ñëw takku. mobilisation boobu ngay wax ni c'est juste la commune de Pikine Ouest ak quelques membre de Benno Bokk Yaakaar mais nag wootee guñ au niveau national. kañ ngeen ko fas yéenaa def mobilisation non c'est-à-dire euh, euh, loolu dafa teel. Hmm. ak guñ foofu ak ñoom. nu muy ni muy teelee Bah Diakhaté def na ñeenti fan tey. Euh, fanaanul këram ñu war ko àtte lundi tey la jeudi. maanaam vendredi samedi ba dimanche ba lundi. Hmm. du fanaan këram ngeen fas yéenaa toog naan xamaguñu wala sax naka lañ war a def. pour organiser benn manifestation pour ñu bàyyi ko. non manifestation bi parce que dañoo xam ne du ñu àgg parce que ba li mu yor moo tax duñ fa àgg ak ñoom. Mhm. moo tax jarul def rassemblement national ñun xam nañ ne duñu àgg ak ñoom foofu. non soobee yàlla lundi incha allah fii la ñuy romb nga ànd ak moom di tàcc di jëm jëm Pikine lu koy man maa la ko wax. Mhm. ñi buñ amoon dara duñ fi téye depuis kañ combien de jours ñu téye ko tey suba tey suba tey suba nañu wax ni dëgg mhm. comme si daloon ku ne ñu am preuve doo yendu. non no non loolu loolu c'est une façon de parler mi ngi mel ne bu ñu nee APR jubawuñ ñu koy wax ne mi ngi mel ne comme man euh, maanaam politique boo gis day am tendance loolu lañ naan tendance A tendance B ah bu mu amee yow tendance du ñu juboo parce que c'est des gars yi xam ne xamuñ li politique mais euh, benn bokk yaakaar APR bu kenn la mooy Macky boo waxee rek ñëpp bokk ànd ñun ñëpp Macky Sall la ñu déglu donc ay jubóo nii c'est vrai man bu ma doonee tendance yow nga doon tendance nga bëgg dara ma bëgg dara ñu bokk même commune du ñu jubóo loolu lañ loolu lañ naan jubóo mais ñun benn lañ boo gisee tey ak déclaration euh, la porte-parole euh, Seydou Guèye ak ñëpp nga xam ne ñu ñëpp benn lañ tey démb ak tey wuute na waaw loolu waxin la rek quoi donc di leen ñaan yéen aussi di leen remercier taxawaay bi rafet na vraiment rafet na tey yéen bu ngeen fi nekkutoon am na lu bari day lëndëm mais yéen a ngi leeral ñëpp yan na yàlla defal leen jàmm bés bés bu ngeen amee jàmm rek ñun ñu mën a exprimer suñu suñu kii merci beaucoup kontaan nañ trop merci. merci beaucoup ñu koy gërëm bu baax dégg nga kàddu yi nga xam ne daal dinañu koy euh, yëkkati ngir ak itam ñëwaat ci les faits gis nga leen baa pikin ak euh, ñeneen ñoo xam ne itam bàyyeekoo nañ ci yeneen gox ngir ak itam daal di ñëw fii nga xam ne moom mooy ci euh, bërëb bi lee ngir mën a. d'accord a leen ngeen soutenir Baye Diakhaté combat bii du combat bu Baye Diakhaté hmm. Baye Diakhaté taxawu na leen ba toll fu mu toll waa APR génn leen ngeen dooleel Baye Diakhaté lii bu nekkoon ñeneen ñi la ñoom ñëpp génn nañ. da nga jàpp ne dañ ko seetaan. non nañu génn. Mm. nañu génn gën ko dooleel. Mm-hmm. Baye Diakhaté dafa sacrifié boppam. xeexal boppam du xeexal boppam sax xeexal Sénégal ak àdduna ak lu ko wër na ko population bi génn jàppale. Baye Diakhaté dafa bàyyi njaboot. bàyyi ay doom li ma li ma jaaxal tuuti mooy. Euh, ku leen dégg seen i kàddu depuis démb ak léegi li ñuy wax moom mooy. Euh, bu ñu jàppee Bah Diakhaté war nañ jàpp Azoura Fall tey mu ñëw seetaan si lii lan moo waral li ni mel. mais Azoura dafa bëgg gars yi tànnaas ko. Azoura dafa am lu muy wut te duñ ko fa cherché. duñ ko fa ñëw di ko fa wut si. Azoura ñëpp xam nañ bëgg. dara indiwu ko fi lu ko fi indi mooy gars yi mu am ak gars yi problème gars yi ko ne Azoura def na lii. mais ñun njabootu Macky Sall ñëpp xam nañ ni ko lii du suñu devoir pour ñëw di jàppante ak Azoura wala leneen ak leneen mais na gars yi ñëw jàppale Bah Diakhaté soutenir Bah Diakhaté il est temps. nañ waxante dëgg damay sant kaddu rek justice na def yoonam ñu ñëpp ñoo yem amuma sama amuma demba loolu la lay sant kaddu ko kon mi ngi noonu ñoo ko dégg noonu mbokk yi ba léegi ñu ngi euh, xaarandi ndax Bah euh, du ñàkk ni léegi ñu daal di ko génne yóbbu ko fële nga xam ne moom ma ca commissariat vu que euh, dégg nañ kàddu yi nga xam ne maître daal dina koy yëkkati juste rek pour wax ne kii di Bah Diakhaté lan di maanaam altine incha allahu rabbi la ñu ko euh, fas yéene àtte la war a taxaw ci baar bile moom nag njortu ne wala sax am na njortu bu rafet ne kii di Bah dina ñibbi fële nga xam ne mooy ca këram euh, gile dégg ngeen itam ñeneen ci ñi nga xam ne ñoo koy jàppal tànk soit ñi bokk ci parti bile wala sax ñi bokk ak moom li nga xam ne moom mooy Euh, mouvement bi lee di activiste républicain dégg nga kàddu yi nga xam ne daal nañu koy yëkkati wax itam ci présence wu ki nga xam ne moom mooy Azoura Fall naam depuis boobaak léegi euh, saa yoo déggee yenn kàddu moom mooy kii di Bah bu ñu ko jàppee war nañ jàpp ki nga xam ne moom mooy Azoura Fall ndax lan nee mooy nit koo xam ne moom moo njëkk euh, tifaar ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar fay tey kii di Bah war a taxaw moom Azoura Fall mu daal di ñëw seetaan si gis nga nañu ko analyser ak dal gis nga itam nañu àndee ak euh, li nga xam ne moom mooy philosophie ngir wax ne rek lépp li nga xam ne xewee na fii euh, dinañu ko ànd ak ñun ñu ngi euh, préparé itam li nga xam ne moom mooy benn marche wala sax manifestation juste rek pour ñu bàyyi ki nga xam ne moom mooy Bah Diakhaté mbokk yi leen di ànd ak ñun incha allahu rab lépp li nga xam ne duppee na fii dinañu ko ànd ak yéen